wax dëgg yàlla Sénégal képp ku ñëw xam ne ñun réewum démocratie lañ démocratie moo tax de Senghor en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba si son excellence le président de la République Macky Sall ñëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla opposition ak pouvoir dafa njëkk dafa yàgg am opposition maître Wade ñëpp xam nañ ko ñoom xam nañ ne dëgg yàlla waaye musul toll si Ousmane Sonko di woote wax dëgg yàlla loolu nag ñun ñu ngi demandé ce que état mu jël ses responsabilités parce que kenn nit boo di def naka su dul noonu wax dëgg yàlla la république ñun luñ koy ñaan sax mooy ko